di ko ñaan sëriñ bi mu ñaan ko xam na ni naka jekk ci loolu la nekk di ñaan suñu boroom yeggale ko ak jàmm mu doon nawet bu barkeel te bu barkeelee ñi nga xamante ni ñoo doon bay tool yi waaye nekk ci biir réew mi ñun ñëpp ñu bokk muurloo ko loolu mooy li nga xamante ni moo doon kaddu li ma président de la république son excellence Macky yónni woon ma ànd ak sama nattaango yi ngir jotale ko sëriñ bi di leen sant di leen gërëm di ñaan sa borom ci turu président de la république Macky Sall sëriñ bi yàlla yokk kattanam yokk wéram ñu yàgg ko fee fekk di yàgg ànd ak moom bis bi wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu jërëjëf ministre Antoine Diome wax ji am na am na taalibe yar yar na ko di dikkaat ci Cheikh Sidi Maxtaar Kan dafa am tuuti ay kilifa yu fi des yu mu war a fàttali yu mu war a yu mu war a delloo am na délégation yu fi wax si Sëriñ Maxtaar Kan délégation ñëw na bismillah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. جبريل لا سيدي bi jotoon ñu digal ci borom ñu wax ko ne ko rabbi asxaabaka mooy temps yu mën si jiite bi kawe ak xam-xam bu sell te yaatu ak posture bu dëgër ak fit ak jom ak ñàmbaar boo xam ne la ko lal mooy rabbaani boo xam ne dara ko moo tax si moom dafa jaay def suñu borom ne ko boo gën a laaj bi nga xam ne ak ak ak jëm jël ci biir atal mu daal di nga xam ne ne lislaam rek mooy diine ji fi nekk ndax mooy diine fi suñu borom inna diina inda llaahi lislaam ba tax mu wax ne diinun siwaa islaami hiya laa yuqbadu inda llaahi bi ak lislaam ak ihsaan sëñ bi ci nabi Moussa mu Faram أسس طريقة الإيمان بالتوحيد والإسلام بالفقه والإحسان بالتصوف وما الوهم الهو إلى الإله بالتوحيد وما رأيت عنه من معين لله أمر بالتفقه بدعة ومن شيء كل كلمة لله أمر بالتصوف معا مكارم الأخلاق وهو شميعا ما yoonu ديون التصوف yoonu tasawuf moo li ñoo li ñoo yeesal tariqatan sunniyatan suufiyatan tajdiidiyatan jaamiatan di yoon a xam-xam bu am njëriñ ak jëf yi ak ci tëddee yu ñu gërëm al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabu mardum xam-xam bu am njëriñ nag la ca jiitu mooy xam sa bopp xam lañ lay def loolu ak nañ la koy def loolu ci loolu comme nit ki dana xam ne ab jàmm yàllaa ko moom mooy tax mu mën koo jox lépp lu mu am yooyoo yooyoo ko ci moom si ragal yàlla ak lu mu jëm moo tax wax ne al ilmu ma aksada xasiyata al alim man xalaa minha jeexalul ngulum ñu soñ Sëriñ wax na ne ñu ngi soñ ñu ngi soñ ñëpp ñu ko santaane woon ci sàkk nga xam ne Sëriñ wax na ومر معنا في العلي راغبين بوجه به يقينا ومن نهاكم عن التعلم فلا بلاد ينتهي العمل الصالح نك أمنا يتمر من يتمر ما تطبي على العبادة ما يقول الإسلام الامتثال جفن جريء بايكر نار الذنب ëmb la mooy taskul xalaal mooy daan sa doole ngir dundal sa bopp ak ñi ngay defoote ci anam gi yàlla jël ñetteelu mbir yi mooy alxidma te mooy jaamu yàlla ci jaamu bi dinañ dimbali ci sa xam-xam ak sa am-am ak sa mam-mam ngir yàlla ak sa sàkku ngërëm ci ñoom al al adabul mardi yi nag mooy am teggin sa diggante sa borom ci gërëm ay borom mu ñu nattoom sant ay xéewal ak ak am teggin bi sa sa bopp ci sàmm teraanga ji yàlla def ci lu fexe ba bañ a def ak bañ ak bañ a man lu tax na xel la wala lu yàlla ak amit a jëm ci sa diggante ak sa borom ak sa morom jaam ci war maa képp ku la mag ak diiram képp koo mag koo maasee ku ne nga teg ko fi nga teg sa bopp. war Sëriñ Tuubaa daan wax dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee guddi fan nga ko doon bàyyi àjjana ne ko ma teer leen dal leen wax na yeneen mooy safaan ndax bu tuddee gàtt fan nga ko doon bari sawar ne ko matière bi rek dana ko. mooy ak tool ndax suñ suñ tool bi mënut waaye suñ fay bi ñor leneen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla ne seetaane ko boo ko seetaane fu mu mën a seetaane la dana jëm. leneen mooy waxee bakkan ndax ku waxee bakkan ñu tontu woon te ñeent féewu te féewu rek la xaj a yeneen mooy fësal te jaar ci ngir ndax kuy fësal ku nekk kuy fili ñu jëm kër yi xam adabi rahmatu saxir kan abi wa kulli wa tawxiru kulli wa jaalu fi dika ka nafsika sawa di wa si xaalixan ala asi sawa mooy muy woote boo xam ne nag jaame xat dafa am na góor yu baax yokk gis yëpp ndax sëñ bi dafa tàq ci yëpp moo tax mu wax ne ak yu mati fi lfiq malik al alim والشافعي والعنفي والحنفي والحنبلي طوالب السادات يجب الناس يرسي على يدابي ومحتمي دي النيب يجال نشيب قطع موحنا وأما أحساب الأحزاب ودعوى رسالهم فأذن في لكم جميعا في العمل بكل ما تيسر لكم هدوما أي كل جميعا يوم الواجب سلم في نتنبه لكم وشوان jaayante ak moom jëbbal ko seen bopp moo tax li leen ba ñu seet nit ci mbooleem ayib bakk di jàng ak jàngalu xel yi biir ak biti te te tax li leen ba ñu fees dal ak jikko yu baax yi nga xam ne ku dem ba ci yëkkati alxaaji Mbàkke Buso di kenn ci ñoom ñi moo seere na wax ne musuma gis taalibe Sëriñ Tuubaa yi ku leen gën ak ku leen gën a ñëw mosu ko dégg mosu ko jàng tamit ورمضان هو الغيث هو الغوث والمياه ربنا قلوبنا واجسامنا والكل الصافي ونعيم وضعت خيمك حتى سير ونبلغ ونجد بلا وقفه فالي مرجي جديد عندي يوم السبب الاستخدام الكسر المجد وحمه yéen la ko bind ci ñoom wax ne lii ma gis seen yar bi ak dal bi ak dal mi yi ñu nangu seen seen gis bi ak ñu ñu yore seen i kàddu da ngay defe ne ñu wopp lañu du ñu ko leen fat wala ay ay ay ñoom di doole ñu ñu sàkk ko leen sàkk waaye ba ñu tàmbalee liggéey seen lépp ak njàmbaar boo xam ne dara lay fi ñoom dara ñu tëw boole ko sellal boo xam ne yéeme na ndax boo déggee seen kàddu lu ñu ñuy tudd yàlla sama pour di bu leen daal du farata du sëñ tey lu ñu xool lu ñu war ci xool dañuy dumóoyu sibb bu jàll muraad bawla tabaddu min afsaadihim hadda ka aswaatin hatta yurannu maan marda araadu atibaa wa masaakiina humuhum yubawu sadaqaati muxrijina rabbihim tabba mu àgg ci wax ni ولم تلق منهم إلا بيضا وهذه إلا هو أطلق الأرض وما رفعوا الأصوات إلا بذكره وما أخروا الأوقات نقدا ولا فضلا ñoom ñi la Cheikh Ibrahima ñoom ak maçon yi doon lanal ca waxtaan doon waxtaan wax baanu day masaani wala ñu def ci suuf loolu mu si def geeru na aw daal yëpp ñu la gàttal ci feebar ne ku la yëpp masaani yi tax mooy ko toxal daal ak islam ñu moom ko suuf ay wa sallu ala moom kulli sajjaar ñoom ñi nag ginnaaw bu leen sëriñ bi defaree ba ñu dem ñëpp ñoo tasaaroo ci réew mi ñu ñu ngi gis ñoom defaru sëñ bi ba tax ñu seen lay dem si ñoom ngir bëgg dem ci ñoom loolu yi seen bi ay million ci biir léegi ak ci biir ak jaamu yàlla ak liggéey ñu nekk ci itam force boo xam ne ñëpp a dem bàyyi ci diine ak xam-xam ak koom-koom ak siyaasa ba tax na Tuubaa ji nga xam ne mooy capital yoon doon doon jëm waaye adduna fépp fu ne ay nit dafa jigéen ndigal xaw nga génn soirée ndax nit rek dañuy am suñu liggéey sa borom te loolu dañuy am sell ci yàlla suñu borom dafa moo tax Cheikh Maodo Fadil ci Basiru ko pour xam si màggal bi Touba ngir bëgg ñëpp jëriñ dama ko waxoon dégg ngeen ne Serigne Touba waxoon ne na ma ko sukkandiku. وأن يطوب عليك باسم المخلة علي شكره بفضل الرسول عند هما وعند الدارة المعنى لأن بارك لكم بو من دونك لكي بيجينا بيجي سنة جاري فلن وقت من الله بيجي لكي لكي سنة دارة من بيجي أجي من نجي من لكي لكي سنة جمار ثم يجد أجي من نجي من أجي من لكي لكي سنة جاري waccan bogis mo bindi ko fekkale yàlla suñu borom defal ma ko dama waxoon war tasbitan fii di jamaatun tafi الصلوات الخمس دأبا يعقوب واشهر دأبا مسكن اتباعه لسنة لا مسكن اتباعه لكن أكي تاي دائرة أكي موضوع يوم يتحم أم أكي في السوسيال كون بسرين بي وخون سرين بيسان بعد فنك تجاري سرين بي دوستان sëñ bi bëri sëñ bi saa jur ko ànd ak tëdd bu rëy rëy ba tool bi bëri ba kenn déglu ñëpp xaw a jaaxle sëñ bi wax ne bàyyi la parce que naa passé dana wax mu fii ba sëñ bi saa ak sëñ sëñ bi kat Babacar ànd nga doon def bépp kii ma ne ko mbàkk da ngaa xare ba daal te bàkk war te loolu mënuñu ko moo tax may bàkk sëñ bi dafa Babacar danaa bàkk sama dëkk ba ca Touba ak sama jiwaay ñoo koy def mooy sama bàkk kon nañu wéy te bañ a gëstu am na mu ngi sëkk kon bis bi mooy sunu bis bu gën moo tax ñu moom suñu bopp moo tax mu jox suñu bopp ba xale jaamu yàlla ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxee woon ndax bu fexee tool yi sottoon kéefar ci réew mi lislaam xëy ko faw moo tax sëriñ bi la wax ne yoon nga attan ne lépp ba mu des attan moo tax mu wax ne loolu tamit sartu da daxatu كريم تبا يالا كو كو ديف اي خصوصيات يو خامي دا كو ديبو ديبو كو كو تاني تي تي يالا موتا موخ امام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يتي محدثات متاخرت وخير خيرات لديك الذكر دا كو ورا فيلم تي يبير الجامع يوجد صلى الله عليه وسلم تخيل بحياته دي باب وام الجامع بدي باب بدي باب 10 مليون بني رسول الله صلى الله عليه وسلم waxoon ci mujj gi wala feneen ci wàllu bon bon ak yàqu seytaane ba seytaane bàq ba jàpp ne daan na wax ne dama bëggoon sotti na la ako yéen a mooy beneen ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين mu dëpp ak sant yàlla gi ñu def ca booba la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di génne bëri ak ci maanaam boobu di sëñ bi wax

المختلف ربي أصحابك بهمة إن أبو سلمى واجر ويتعي المثل سجيتي بكلا أخاف مسلم تيالا أتصل بدر أكيد أجوم أيام بار محمد لا بلال ويرب باي القوم نركض موضح لك جاي يسوع درم لكم هو اللي لازم بحمده أكثر من لكم jom jël ci biir affaire mu daal di xam ne lislaam rek mooy diine ji fi nekk ndax mooy diine fi suñu borom inna diina inda llaahi lislaam ba tax mu wax ne diinu siwa islaamihi laa yuqbalu inda llaahi kullu shay'in jadid diine jooju rek mooy liimaan ak lislaam ak lislaam sëñ bi nag wax na ba may dem si géej gi ñett yooyu ñëw ma ci nabi Moussa ñëw ma ci Marta mu wax ne أسس طريقة الإيمان بالتوحيد والإسلام بالفقه والإحسان بالتصوف وقف الوهم أدعو إلى الإله بالتوحيد وما رأيت عنه من معين لله أدعو بالتفقه وما ومن من شيء كل كلمة لله أدعو بالتصوف مع بمكارم الأخلاق وهو شمعا ما يرسل لك ديون التصوف ما أمر ëmb ديور ياسر يسل طريقته سنية صوفية تجديدية جامعة ديور حم خم بأنجل الجفن أكتد المدر العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرغوب حم خم بأنجل نك بتجيته موي خمسة وقت xam lañ lay defloo ak nañ la koy defloo ci loolu kon lan laa ko moom mooy tax mu mën koo jox lépp lu am yooyu yooyu ko ci moom si ragal yàlla ak lu muy jëm moo tax wax ne al ilmu ma aksaba xasiyata al alim man xalaa minha jaahilun wulim ñu soñ sëriñ sëriñ wax rek ñu ngi soñ ñu ngi soñ ñëpp ñu ko santaane woon ci bi nga xam ne sëriñ wax na ومن معنا في العين راغبين بيوم شمال به يقين ومن نهاكم عن التعلم فلا من البلاد ينتهي العمل الصالح نك أمنا يتمر من يتمر ما topp yàlla ci alibada mooy boole ak islam ak ak ak ak ak ak imtisaal jëfe ndigal bàyyi xel ñaareel gën ëmb da mooy taskul xalaal mooy daan sa doole ngir dundal sa bopp ak ñi nga jaboote si anam nga yàlla jël ñetteelu mbir yi mooy alxidma te mooy jaamu yàlla si jaamu bi di leen dimbali ci sa xam-xam ak sa am-am ak sa man-man ngir yàlla ak sàkku ngërëm ci ñoom al al adabul mardi yi nag mooy am teggin sa diggante sa borom ci gërëm ay borom muy ñu nattoon sant ay xéewal ak ak am teggin bi sa sa bopp ci sàmm teraanga ji yàlla def ci yow fexe ba bañ a def ak bañ ak bañ a mel lu tax nga xeeb la wala lu yàlla ak amité gi ci sa diggante ak sa borom ak sa morom jaam ci warmaal képp ku la mag ak yërëm képp koo mag koo maasee rek ku ne nga teg ko fi nga teg sa war Sëriñ Tuubaa daan wax dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee guddi fan nga ko doon bàyyi àjjana ne ko matière ne dal na wax nag yeneen mooy safaan ndax bu juree gàtt fan nga ko doon bàyyi sawar ne ko matière la am yeneen mooy ak tool ndax bu kuy tool bi mënut waaye kuy fay bu ñor yeneen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla ne seetaane ko boo ko seetaane ku mu mën a seetaan la dana jëm yeneen mooy waxee bakkan ndax ku waxee bakkan ñu tontu woon te ñeent féewu te féewu rek xëy na yeneen mooy futal te jaar ci ngir ndax culture la Sénégal suñ Chine yi ñu jëm dañuy xam ne adabi l'ahmadu saxir kal abi wal ummi wa tawxir tëbi wa jaalu in fi dika kanasika sawa bi wa si xaalifan ala asi sawa mooy muy woote boo xam ne nag jaamee dafa am na góor yu baax yokk gis yëpp ndax sëñ bi dafa tàq ci yëpp moo tax mu wax ne ak yu mati fi fiq maaliki alim والشاطئ والعنف والعنف والحنف والعنبر طوالب السادات تجد الناس يرسلسي على يدابي ومرتبه ديال النيب يجال النيب قطع مؤمن واما احساب الاحزاب ودعوى رسالهم فاذنت لكم جميعا في العمل بكل ما تيسر لكم هدوما حيث اوجدتموه بمروات السلم سنه البيت بمكوشون جايان تاك موم جيبال كو سين بوك مو تخ لي يالين اي باك دي جار باك جار لو خدي بي دي اكو تي تي تخ لي يالين با ني فاس جال اك جيكو يبا ليغا خامل كو دال فاي تي جيكو الحاج باك يوسف الثاني سي يوزو موسو باك ستادي مي سي جوالي كو نيل جيل ولا المؤمن هو العيش هو العوف والمغياث قطع قلوبنا وأجسامنا والكل الصاخن وناعم وضعت خيمة حتى سير ونبلت ونجد بلا وقفه قال مرجي جديد ak di seetlu gis gis ak yàq ak ko seet ak njëg boo xam ne yéen na ko bind ci ñoom wax ne li ñu dem seen seen gis bi ak li ñu yore seen i kàddu da ngay defe ne ñu wopp lañu di wër ku faj wala ay ay ay ñoom ji doole ñu sàkk ku leen sàkk waaye ba ñu tàmbalee liggéey seen lépp ak njàmbaar boo xam ne fi ñoom dara yi tëw te boole sellal boo yéeme na ndax boo dégg seen kaddu ñu ñu tudd yàlla tawax ko guddi bu leen daw du farata du tey dañuy xool li ñu war ci xool dañuy mooy sibb bu jàll murabbawna sab'atun min as-sa'ili mu'adda ka aswatin hatta yuzannu ma'an marda aradu atibaa wa masakina humuhum ذو صدقات مخرجون ربهم تبعا المعاد سبحا ولم تلق منهم واحدا اجنبيه فهذه الا هو اطلق الامر وما رحم العباد إلا بذكرها وما أحر الأوقات نقلا ولا فضلا يوم يلسع إبراهيم يوم المصري يوم لمن وقع وقاس ورحبان الليل المساجد ولا يده في السكر والموسيقى غير الأوراق يسلون كتابة كتابا إلى المساجد تقدر وتقدر الإسلام دين والشكر وصلوا على كل سجاد يوم هناك ginnaaw bi leen sëriñ bi defaree ba ñu gën ñëpp ñoo tasaaroo ci réew mi ñu ñu ñu gis ñoom defaru sëriñ bi ba tax ñu seen leen leen jëmbul ci ñoom ngir bëgg am gën a jaar ci ñoom loolu nag xam nga ci sëriñ bi njëkk yàgg moom ba muy dem ci tukki ba ca natt ba ak ba mu dellu seen ba tey jii tey ñu ay million ci biir jéegi ak ci biir suñ ci ay téeméer téeméer dëkk di sàkku xam-xam ak jaamu yaa ak liggéey ñu nekk ci itam force boo xam ne ñu ko dem bàyyi ci diine xam-xam ak koom-koom ak siyaasa ba tax na Tuubaa ji nga xam ne mooy capital yoon doom doom ci mu waaye adduna fépp fu ne ay nit dafa jigéen di dem ci dëkk bi donc fii ñëw xaw nga génn soirée ndax nit rek dañuy am suñu liggéey sa borom te loolu fi ñaan ko sellal ci yàlla suñu borom defal ko moo tax Cheikh moom dafa dem ci passion ko ko xam si màggal bi Tuubaa ngir dëgg ñëpp jëriñ ci dama ko waxoon dëgg la Serigne Tuubaa waxoon na ma ko yokk sukkandiku. هذا دار السلام

mooy sax boo gis ma bind ko fekk na yàlla suñu borom defal ma ko dama waxoon wa tusbitan fiihi jamaatan taxiim الصلوات الخمس دأبا يعقوب واشهد دأبا مسكن اتباعي لسنة لا بعد فنيك تجاري سيرين بي sëñ bi benn sëñ benn saa jur ko ànd ak tëgg bu rëy rëy ba ci wàllu benn ba kenn déglu ñëpp xaw a jaaxle sëñ bi wax ne bàyyi dara bu parce que naa bu accès dana wax mu fii ba sëñ benn saa accès sëñ bi dafa baabakat ah li nga doon def loolu fii ma ne ko ndax da ngaa xare ba daan te bakku woon te loolu mënuñu ko moo tax may bakk sëñ bi dafa baabakat danaa bakk de sama dëkk ba ca Touba ak sama jiwaay ñoo ngi koy def mooy sama bakk kon nañu wéy te bañ a gëstu ndax am na lu mu sëkk kon bis bi mooy sunu bis bu gën a rëy moo tax ñu moom suñu bopp moo tax mu jox suñu bopp ba xale jaamu yàlla ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxee woon ndax bu fexee tool yi sottoon kéefar nag ci réew mi lislaam xëy ko faw moo tax sëriñ bi daana wax ne yoon nga àtt ne lépp ba mu des ak tamasu moo tax mu wax ne loolu tamit sartu da daxatu naa la def yàlla ci jaay Serigne Touba yàlla bu ko defee ay xusuusiyaat yoo xam ne da ko jagoo te bokkul ko kenn ci nit yàlla yi moo tax mu wax ne ci maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kulliyati muhaddisatun taaxarat wa xayra xayraati la day def dafa waroon a feeñ ci njëlbeenu jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tax daxañal ko xeetam bi ba waam bu jamono bu demee ba bu demee ba adduna لم يصل الله يسال على شعبه أن تنتج من فعله سواء نظلمهم أن يقتل سيطانا فسيطانا قف فجعتنا قانا ونحن لهم هو منصفنا لأكون ينهم وإبنهم ثم لا آتينهم بين أيديهم بين خلفهم وعلى إيمانهم وعن شرائهم ولا أني أكثرهم شاكرا ومنذ فرصمت يا الهيرة تبوب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مرة أتبتون على مدور بسم الله woo ko mbootam xamal ko jàngoro jamono wante fi ñu war a jaar fi ñu war a jaar yi ñu ba ñu ñu fi tey ak ëllëg Serigne Touba moom yàlla moo ko defal li mu ko defal li am solo daal mooy yi moom dañuy màggal lislaam bi dañuy màggal amul benn kër diine bu def euh, amul benn kër diine bu jëlul kaddu wax kon yàlla fay na sëñ Touba. waaw Père Ablaye ñun dañuy gis xew la rek yow ñu gis la fii. ma Touba laa du la yàlla ko gouvernement bi def mu sant ko moom la képp koo xam ne nii yaa ngi Touba te tamit sa xel nekk xel bu rafet noonu noonu. macha allah waaw waaw bàyyi rek benn question dañu gis ñu xool barki dem rek président réew mi ñu gis tension bi mu am en en tant que homme politique réaction yéen nga ciy def. waaw mais loolu du dara. tension moom ci ay ndaje. day am ci pencum ndaw réew mi. di am ci association yi. di am ci ASC football yi. du am yëpp. liñ ci li ñuy xaw a naqar rek mooy ñoom def tension ba police du fa dugg loolu rek la waaye ab tension moom ci ay ñuy wax waaye alxuraan dañ lay boo jaadiloo bi nit yaa sax alxuraan terewul werante waaye dana ngay werante ci werante ni mu gën a rafete mhm. loolu amul amul benn jafe-jafe man de gisuma ko lu ñaaw dañ mhm. war a def mooy ñu jàngat ci ba ëllëg ñu fexe ba nga xam ne werante bi ñuy am seen biir ñoom ñu fexe seen biir keneen di ci biir police du fa dugg gendarmerie loolu rek ci am jërëjëf man la maam Cheikh Mbacke Khare o président de l'AIS dëgg la sëñ Modou Bousso Dieng sama cousin la sama frère la ñu bari dañuy jaawale ok jërëjëf jërëjëf kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp Louga eh, télé bi waaw euh, cérémonie officielle bi jeex na takk léegi lay doog a jeex alhamdulilahi rabbil alamin euh, discours bi sëñ Bass Abdou te ñëw na ci anam boo xam ne euh, daa wax ak ndaw ñi fi jamono toon ndax réseaux sociaux yi actuellement li ñu dund dafa doy waar ñoo xam ne dañuy jàpp seen bopp ne dañoo war wax te waruñu wax ñoo xam ne dañoo war jàpp nañoo war wax ci diine waruñu wax ci diine jàpp na diine euh, jébaane la jàpp na diine xas la ŋàññi la jàpp na diine nangam la fekk du loolu loolu nag euh, bu ñu ko bàyyee day yëngal pas-pasu ndaw ñi ba tax na suñu bee waxaat ñëw gën a ñëwaat yëng euh, ndaw ñi seen digganteeg seen kilifa seen digganteeg Serigne Touba seen diggante seen kilifa diine yi mu indi ji discours bu am solo fàttali Sëriñ Tuubaa digganteem boromam waaye nan la war a ñoom tamit téye seen kilifa diine yooyu ba euh, li yàlla bëgg ñoom yenn chance bëgg ñoom ñu am ko ndax a ñàkk a wax ko rek topp nga diinu suwa islam laa yoxmat inda laahi bu ñu jaddid loolu sëñ Tuubaa wax li mu suwa nawaytu maa jaddid sunnatul xaraaba yi ni ahmad loolu sëñ Tuubaa wax ba tax na kon nañ gën a doole góorgóorlu gën a sàmm suñu kilifa yi gën leen a ànd ak ñoom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 assemblée fan yi jàll lañ koy doog installé coow lee pëcc xooy bari na looy wax suñu waay politique yi rek wax naa ko barki dem nee leen euh, loolu déception la kenn mënu koo euh, maanaam wutal preuve ne dañoo bëgg nangam nangam nangam nag mëntu nekk ndax lu ci ne dañ ko war a lijjanti ci dal waaye du violence du ay actes yoo xam ne ku ko gis ndaw ñi mu ñu gisee dañuy jàpp na loolu mooy nekk du tamit ne assemblée yi yeneen yi boo demee dañuy xeex dañuy déedéet loolu tamit du lay am solo mooy dañ leen tànn ci ay millions de Sénégal yóbbu leen lu ñu war a lijji mën nañu ko lijjanti dal xeex du jub saaga du jub dara du jub do ay acte yoo xam ne sax day wane ni nang loolu moo tax déception la ci Sénégal yëpp donc ñu ngi lay waat muy parti pouvoir opposition ñu gën a am retenu gën a xam ensemble du xeexukaay ak ensemble déglu la laaj ak ak ak xam-xam ak ak wax ci xel loolu la laaj waaw loolu mooy li am solo loolu bu ñu ko defee rek waxuma la dara liñ bëgg ñoom dana am waaye li Sénégal yi séntu ñoom dana kenn du leen jëpp bëggul Moustapha doo jullit te ku bëggul Serigne Touba bëggoo Moustapha. ku bëggul Serigne Touba bëggoo Moustapha. waaw fii yàllaa fi nekk mooy joxe may képp ku am problème nag ak may doomi aadama yi jéem a la xool nooy def ba yegg sa borom daataan ko rek. jaamu ko rek ragal ko rek lu mu la jël waaye fii yàlla fi ne wasalaamaaleykum wa rahmatullah en tant que député kaddu go population bu Touba kaddu yi nga xam moom la message Serigne Bassirou Mbacké bu Serigne Abdou Khadir yëkkati ko an ci turu xalif sa de Mouride dégg nañu ko wax na message ak population bi wax na ak opposition bi wax na ak état bi ñetti kaddu yoo xamante ni kenn ku nekk mën si dégg lañ si waxe benn bi nee na nguur gi nga xamante ni yéen jox suñu milliards ak mhm. am yërmaane ci askan la boo

am na problème manque courant bi am na réseau yu doyut ba pare maanaam suñu nit ñi nga xam ne doon ñëw taalibi suñu tuwaay faatu bu fekkee dafa jël kaddu en tant que représentant peuple euh, waroon na sax maanaam au moins jéggalu leen euh, massawu leen jaale seen waajur jaale famille bi loolu mooy li nga xam ne moo jaru mais daf ko humilier euh, daf ko humilier loolu nag mooy wan ni moom askan wi ñorul leen kon loolu misaal boo xamante ne nu ñëpp def nañ ko rapport wax naa ko sax ni ko li nga def waroo ko def parce jaale ñi nga xamante ñoo doon ñëw en tant que ministre yor sécurité publique faatu nga yëg loolu depuis démb si guddi boo ñëwee war nga jaale si turu président la république mais malheureusement def ko kon loolu man moo tax waaw mais xam nga lu si man da am rek man damay wax xam nga man man dama man dama nekk nit koo xamante ne lu ma gëm laay wax

wàllu politique assemblée gis nañ nañ demee gis nañ taxawaay ba nga fa lan nga ñu mën a wax. en tant député sama taxawaay depuis 2017 moom laay wane mooy damay wan ni koo xamante ni ñuy violer ay loi ak ay règlement dama ñëw ma ne leen. li nga xam mooy règlement intérieur Assemblée nationale article 109 article 51 constitution article 54 alinéa 2 moo ñu tënk ministre yi amuñu sañ-sañu seese loolu loolu laa gëm te loolu mooy li am ministre yi nañu démission wala ñu dàq leen ba nga xamante ni maanaam euh, pare nañu ñu yóg ñëwaat mais malheureusement war nañu wax ci wàllu euh, defuñu ko comme defuñu ko nag coow am na fa bi coow amee ñëw nañ si man pour wax ne ñu waxtaan ñi nga xam ñooy gars yi mais malheureusement tey ji am nii mooy ku ne xam na ne président assemblée bi ñu fal dañ ko fal ci far force ay centre mu ñëw ñëw pour ñu far ndax 1962 li am ni la depuis 60 ans Senghor moo ak Mamadou Dia tay Macky Sall indi war ko ont kon yakana un la bo xamanteni ont ko baye mu dem du ci te image mi ba ministres ñett lan ak ay directeurs ñu ont Sall dindi sen poste mais malheureusement amul ndax gis nga ku ne ku euh, le député Mimi Touré directement ni moom été wul Farba Ngom kon wat wala balul jàpp na ne jaarul yoon jaarul yoon jaarul te donc attaque incha allah oui jaarul yoon ba safar yëpp weeru université boo xam ne dañ koo tijji kenn ku ne man cee jot di ca jànge kon discours sëñ bi nag moo koy teg ñëw clôturer lool nga xam ne mooy lépp euh, ndax magal gi dafa dafa bari ay ay xeeti xeet bernde bi nekk na ci jëf ngir jëfe ndigalul sëriñ bi jaamu yàlla gi nekk na ci euh, gis nga tey li fa day ci ay diplomate ci ay délégation loolu benn xeet la ci gis nga li nga xamne ne ci walu kom kom jarign bi nga xamne ne am na ko loolu beneen xeet la ci don euh waye amna benen xet bo xamne bu am solo la moy xet jàngale jàngal talibey xamal len loolu c'est la dimension éducative kon loolu mo dik ci walu thème bi nga doon wax ak jàng li nga xamne ñu ngi koy def ak borom xam-xam yi ñi ngi len dajale ñuy wax ak taskati xabar yi ñuy def ay conférence dajal bi kon dal dañuy sante yàlla ci di sante le serigne bi yàlla waaye nda aussi di sant yàlla ci suñu wàllu bopp bi mu nu mayee nag boole ñu fi njabootu sëriñ bi nga xam ne ñu ñëw di ko taxawul euh, bésam bu rëy bi nga ne amul lu dul moom barkala sëriñ Cheikhouna sëriñ Cheikh Abdoul Ahad euh, mu mel nag euh, tey ñaax na askan wi rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñu yëngatu ci wàllu politique di ko jëfandikoo bu baax mu mel nag xam nga xam nga xam nga réseaux sociaux yi dafa nekk mbir moo xam ne kenn mënu ci dara waaye liñ mën a def mooy yar suñu ñoñ suñu ñoñ ñaax su suñu ñooñ ba buñ ci duggee du leen fabbi du leen dugal ci leneen du leen yóbbu ci yoon woo xam ne waruñ caa nekk loolu rek mooy li am solo ndax am pénc la penc moo xam ne mboolem monde bi dañ faa daje képp kuy ñëw nag sa aada ngay indi la nga xam ngay indi sa jikko ngay indi kon ñun nañ fexe ba suñ ñooñ buñ cay dem yóbbaale seen jikko yóbbaale seen aada yóbbaale seen njàngale te mooy leen mag ñi loolu mooy yoon bu ñu ko defee ñun ñooy soppee waaye kenn duñu duñ soppe loolu nag la fàttali ne boobu relation lañu war a am ak réseaux sociaux yi mais nit ñi duñ ko bàyyi ala kulli àll faaw ñu fiy dem waaye buñ ci demee nag nañ fi yóbbaale Serigne Touba nañ fi yóbbaale lislaam nañ fi yóbbaale seen yar nañ fi yóbbaale seen i teggin ba sopp nit ñi te kenn mën leen a bañ a soppi jërë ngeen jëf barkala Serigne Abdoul Ahad Gaynde Fatma amani hala mahin mal absa wa safar salatu lazi fi kulli sayrin wa fi safar